cinquième édition ngay def chaque chaque année dépistage yoo xam ne di jàppale jigéen ñi ci feebaru cancer tey muy cinquième édition bi lan nga ñu mën a wax ci journée. waa Aïda d'abord maa ngi nuyu ñu ñuy seetaan di wax ne di dëggal li ngay wax ah bi mooy sama cinquième édition jot na show euh, ñuy def dépistage euh, gratuit euh, contre le cancer du sein et du col de l'utérus mu nekk nag journée boo xamante ne li xew ci dëkk bi pandémie bi de un. de de conjoncture bi c'était un peu difficile mais yàlla jàppale nañu ba octobre bi euh, def nañ ko comme li ñuy wax rek yàlla moom booy mëbatee def lu baax pour ay nit yàlla daf la ciy jàppale. cancer mu nekk loo xam ne nag gii gi da ko da ko maanaam bu mu noon def zéro cas dootul amati Sénégal dina ko def soxal na la feebar bi ñu bëri ñu ngi naan gii gi est-ce que du xool yeneen feebar yi mais mu taxaw rek ci cancer. <laughs> non xam engagement bi du choisir feebar dëgg la feebar yi bëri nañ fi mais cancer euh, du sein ak du col de l'utérus dafa nekk loo xamante ne euh, euh, dafa dafa dafa bëri te nit ñi duñ ci wax te nit ñi duñ ci wax loolu man dafa nekk loo xamante ne daf ma jaaxal trop parce que day reyee feebar boo xamante ne aussi autant nit ñi dañ dem wax ne boo ko amee tu es comme dam ne da ngay dee dina jox ay weer ngay dund ba kuñ ne danga am cancer rek da daw ma ne dafa am ñoo xam dañ ko doon sax nëbb mais euh, gis naa ne vraiment bi ma duggee ci ci combat bi ànd ceeg waa Liska euh, ñi sensibiliser gis naa ne léegi nit ñi ñeme nañ ko nit ñi ñeme nañ ko bu baax a baax a baax a baax ba nit ñi euh, même man su ma deful dépistage sax da gis ñoo xamante ne ñuy dem ci centre yi dem defi dépistage. avant tout maa ngi lay nuyu Aïda di nuyu Ablaye Mister Laye cadreur bu mag bi caméraman bu mag bi international. yow tamit vraiment toujours adorable charme bi nekk ci yow toujours mi ngi ci ci sa liggéey nga gëm ko bëgg ko am itte nag am itte ma lay gën a ñaanal quoi di la gën a ñaanal vraiment voilà loolu euh, dina ma neex cinquième édition bi yàlla def ñu fekke ko quatrième édition bi daaw ñu ngi fi woon troisième édition bi ainsi de suite ainsi de suite ren yàlla def ñu fekk ko tetal ko te yàlla nañ koy fekkee saison yi bëri bëri bëri bëri bëri bëri ngeen koy assister muy initiative bu extraordinaire mu def ko fii mu dëkk di Grand alors que euh, mooy ni ma koy xalaatee rek di ko waxee yamul ci way wi rek mi ngi innové mi ngi innové octobre rose saa yu mu ko déggee rek euh, sama xel ci Guigui Sarr lay dem parce que euh, moom moo moom octobre rose parce que mi ngi mobiliser maire yi tey kenn desul Grand Yoff ñëpp génn nañu ñëw def si dépistage ak consultation gratuite bii mu maye vraiment ma rafetlu loolu muy lu extraordinaire ma ànd seeg sama soxna nag faajeego moom nga xam ni jigéen ju mën góor la moo Guigui ñooyam vraiment di ànd di liggéey boobu ba léegi ma leen gunge euh, aw ma ci benn regret vraiment. ban message ngay lancé jigéen ñi pour ñu gën a ñeme dépistage bi pour mën a xeex cancer Sénégal. tout à fait jigéen ñi dañu war a ñëw parce que ku ñëwul euh, euh, doo xam si sa jàngoro ku ñëwul def dépistage passé consultation doo xam lu la dal te dëkk bi ñëpp a feebar ñëpp a feebar kenn wérul raison pour laquelle diw décédé nga ni mais ñoo nekkoon démb wala ñoo nekkoon léegi. parce que voilà malaise bi da koy daaneel euh, bu doon sama sago daal jigéen ñi surtout jigéen ñi nga xam ne ñoom la plupart wéruñu à cent pour cent nañuy dem euh, vraiment di dem defi dépistage di dem consulter wu di xool seen état de santé c'est très important parce que adduna moo demee noonu lekk bi baaxul dëkkuwaay bi baaxul poussière bi ngelaw li ah oto oto yi nga xam ni vraiment dañ leen war a fourrière loolu am na ci solo trop da ngay dugg ci taxi taxi bi mi ngi saxaar dangay jiit lekk oto oto baa ngi saxaar vraiment loolu rek loolu rek feebar la dëkk bi tamit parfois tilim bi salte bi mobilisation bi ñu doon def ci vraiment covid bi gars yi dañu tekki seen loxo te covid bi mi ngi ci mi ngi fi ba léegi jëlaat leen jëlaat leen seen responsabilité protéger wu aar seen i njaboot c'est très important may rafetlu vraiment gigi sax lii mu def nii ma koy rafetlu euh, vraiment di ko ci ñaanal une très très très bonne continuation man maa ngi tudd Maria dëkk HLM Grand Yoff waaw depuis keroog la ma sama grande sœur bi woo Mama Gueye njëkkee gi gi mu ne ma en fait dañuy def consultation du seen ak du l'utérus ma ne ko ah lool de lu baax la dinaa ko wax ñu ma xam ak ñu ma dëkkal ku mu intéressé nga ñëw kii sama tata la maa ko wax mu ñëw ba fii amaan na ñeneen ñu dëkk ba yoof mais ñoo ñibbi nañ en tout cas lii daal geste bu baax la parce que daf ñuy jàppale ñun jigéen ñi da ngay xëy xëy rek ñu annoncé cancer baa ngi sa yaram te doo ko xam parce que nit moom ñu la nee ñëwal faju moo gën kontaan dañ ci torop te yàlla na ko yàlla fay xolam ndax tey ji bu ko neexoon mu woo ay mbokkam kese mais def ko daf ñoo woo ñun ñëpp ñu ñëw consulté wu xool suñu wér yaram ñu ngi koy sant di ko gërëm yokk ba yëg la ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla na ko yàlla fay xolam nag moom lu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla fay kontaan nañ torop wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ñu ngi koy remercier bu baax ndax gi moom gis nañu lu muy def biir Grand Yoff du li kese lay def defaat na yeneen mais yàlla na yokk ba yëg ko nag noo fay ñu dara ñoo ngi ni ba ñëwee ba léegi ñu ñuy jox kafe ñu naan lépp accueil bi macha allah ba ñëwee ñu ngi ñuy accueil macha allah dangay ngay toog sa tuuti nga gis gars yi ñëw ndax dugg nga wala am nga ndox wala manqué woo dara wax dëgg fa yàlla man moom ba ma ñëwee ba léegi maa ngi ni dara méttiwu fi wax dëgg fa yàlla dëgg rek a tax may wax kontaan ah sama teewaay moo man fii laay liggéey mais sama teewaay mooy événement bi fi xew te Guigui def ko quoi vraiment ñun kontaan si waa Grand Yoff yëpp kontaan si parce que vraiment geste bu mu def nii waa Grand Yoff ñu kontaan nañ si ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que geste bu mu def rafet na mënoon na yem si musique bi rek mais dafa jël musique bi boole si faj jigéen ñi di aar cancer bi vraiment ñun kontaan nañ si trop trop trop am ay partenaires tamit yu ko jàppale vraiment bég nañ si li mu def nii moom dégg ngeen si nii. torop waa Grand Yoff yëpp kontaan nañ si muy góor ak jigéen paa yi mag ñi ndaw ñi ñëpp kontaan nañ ci moom. donc mu nekk mu nekk loo xamante ne donc gis naa ne nit ñi léegi ñu ngi ciy gën a bàyyee xel nekkatul feebar bi ñuy wax feebar bu bon bi a feebar bu ñuy nëbb mala feebar boo xamante ne da dee. mais am na ba tey jigéen ñu ko ragal ñoo xam ne dañuy ragal dem dépisté wu parce que dañuy ragal ñu wax leen am nañ feebar ñooñu lan ban message nga leen. mooy sama combat nag loolu moo gën a tax ma dugg ci. parce que ñu bëri ñu may dajal dañu may naan gi tey su ma ñemee dem dem ba def dépistage parce que li nga ciy wax dafa bëri te comme yow ni nga ko waxee ah mënoon na la ci bañ a fekk xale nga am nga sa carrière nga yem ci sa musique rek mais li nga ci engagé woo ñun sax moo tax ñun ñuy dem di xooli suñu bopp te c'est vrai ça fait peur ça fait peur man mi fi nekk suba ba tey gis naa ñoo xam surtout ci journée bi euh, vraiment nekk na lu métti parce que am na ay cas am na am na ay cas yu bëri yu garaaw da ngay gis kuy dugg ak kuy génn vice versa da ngay gis parfois nit di dugg kontaan avec avec confiance génn triste mais sant yàlla parce que du nekk phase boo xamante ne graaw na am am na quelques cas yu mais graw mais da nga gis tam ñoo xamante ne dañuy dugg ragal génn soulagé parce que dañ leen naan amuñu ko donc sant yàlla sant yàlla donc di wax leen nit ñi nañ dépisté wu nañ dépisté wu ah man mii chaque chaque fois man damay dépisté parce que man mënu ma ne dañuy wax booy digle sangat day fekk yow nga set donc nañ ko teel a gis teel ko faj parce que lu ñu mën a faj la lu ñu mën a faj la te buñ ko teelee faj rek dafay teel a dafay teel a dem ci yow du la du la lor du la rey. ci cas yooyu noonu est-ce que am na euh, ñaata xam nga ñaata cas ñoo amagum tey wala boog est-ce que dina am suivi après. bien sûr bien sûr waaw xamaguma exactement parce que ñi ngi ci déroulement bi ba tey mais euh, am na ci ñoo xamante ne euh, présidente LISCA ah ñoom jël nañ leen en charge. te en même temps ñu ngi may ay bon mammographie boo xamante ne bu ñu gisee affaire bi rek dañ lay wax nga dem Lisca jëli bon bi ñu defal la mammographie pour nga mën a commencer traitement bi. ma leen di remercier parce que léegi léegi rek may nañu ay matériel li nga xamante ne mooy poste de santé bi parce que man Grand Yoff rek laa am donc man képp ku ma mën a indi mu indil mu sokkali Grand Yoff rek. donc dama koy def liska aussi laa am donc képp ku ma mën indi mu sokkali Lisca rek aussi dama koy def. ak waa Marie Stopes mi nga xamante ne aussi ñëw nañ fi ñoom suma première édition la ñu gis ma doon def lu baax rek ñu ñëw ah muy benn dame bu ñuy wooyee Amina madame Sène boobu ba tey bu mu jàppee ba tey tam bàyyiwul donc ñun genre nit yooyu la ñu soxla parce que dañoo bëgg a nit ñi di jàppalante lépp loo xamante ne mën nga ko au delà de ton travail nga nga def au loolu la la yàlla di fay boo defee lu raw sa liggéey foofu la fayum yàlla bi di ñëw mais sa liggéey salaire ngay am mais boo defee lu raw liggéey loolu fayum yàlla la parce que c'est vrai ah damay def social euh, damay def dépistage mais ñoom bu leen neexoon aussi muy Liska muy Marie Stopes bu leen neexoon aussi ñoom ñi bañ ci impliqué wu te duma ma leen mënal dara. Euh, journée bi moom journée fierté journée sant yàlla la ndax ku ne xam nañ ne doole matul jigéen ñi mënuñu dara amuñu dara kon bu amee initiative bi depuis cinq ans mu di ko répété avec ses maigres moyens. mu dëkk Grand Yoff xalaat population di leen jàppale di jàppale les femmes di jàppale les enfants di jàppale les vieillards ñooñu dañ si sant yàlla cancer bëri ci dëkk bi ñi ko ñu bëri dañ koy am ragal dem hôpital ñu bëri dañ koy am ñàkk moyen tax du dem vers les hôpitaux ndax boo demee ñu lay laaj mammographie quarante mille francs ku xëyul am depanse loo jox sa njaboot doo mën a dem fay quarante mille francs moom bu defee initiative bi di ko def gratuitement di artiste mënoon jël xaalisam def ko feneen ndax du moom moo fi mu jëfal waaye ñii ko fi jiitoo ngi fi defuñu lii leneen la ñuy def seen xaalis kenn xamul fu ñu koy dugal nit dëkk na ci quartier di ndamoo di ma suis de la Médina je suis de Guédiawaye je suis des Parcelles mais moom elle est fière de Grand Yoff lu mu am Grand Yoff la ko indi ñu di ko ñaanal rek c'est une très très bonne initiative yàlla na ko yàlla yokkal doole ba mu mu mu continuer lii muy def Grand Yoff mu tas ko ba muy di ko def partout au Sénégal parce que les dames en ont besoin cancer du sein mu ngi def ravage cancer du l'utérus mu ngi def ravage partout au Sénégal te ordonnance na garab seer na mammographie seer na échographie seer na kon nag ku def lii gratuitement dañ lay ñaanal rek barke sëñ Babacar si sama góor gi laa koy dénk sama doom la man man lii may wax lu ma xam nga waxuma par hasard lu ma xam-xam kuy xale bi muy ku soutien famille am soutenir yaayam ou frère am ou famille man mi sa mère mu jàpp si kon nañ koy ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na ko mën ay ati ati ati at que fuuyul beewul jaayul maanaa lu mu am rek Grand Yoff Grand Yoff rek la bëgg ndax gii gi doomu Grand la gii gi nu mu tukki nu mu guddi guddi guddi lay fanaan bugg Grand Yoff yëg waa Grand Yoff xeebul kenn muy mag ak ndaw bugg famille am bugg ñëpp nag man de wax dëgg yàlla euh, dama ko naw dama ko naw dama ko nawul ndax euh, mën-mënam jii gi boo fekkoon si moom ñaar dërëm ngay jàmbat dala koy jox waxatuma la nag nga feebar bu amul lu mu la jox sax pour nga dem jënd sa ordonnance dalay yebal si ndeyam te boo ñëwee si ndeyam lu mu war a dépensé sa ta da la koy jox ku am yërmande la si doomu aadama ku am yëg-yëg la jéegi da ngay feebar sax moom mu feebar ku baax ku bëgg doomu aadama feebar bi yàgg na ko jooy de bi muy xale bu gisee ku feebar cancer rek jéegi affaire bi da koy metti lool lool lool lool mu am ak lu mu amul yëpp da ko siy man nag maa ngi ba mbuur bokk ak yaayam waaye mënoon na maa bàyyi ma tëdd mbuut te bu ma tëddee mbuut bu amee dara di dama jox waaye daf ma ne kaa leen dépisté ndax euh, boo leen dépisté woo nit ñi dañuy gën a ñemee dépisté wu ndax lii jarut ragal waaw ñu bari nag ragal a tax duñ ko def dafa metti wala bu ma demee buñ ma nee dama ko am nu may def déedéet nga teel koo xam teel a jóg moo gën nga yéex koo xam waaw kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ni mu mën ren ji yàlla bu déwénee mu mën la ko raw yàlla feebar bi jóge fi ba mbébétoom daal gën a sori ndax bu ko yemale fii Dakar rek ndax Dakar rek du Sénégal bu gën a jénn si biti si àll bi ndax ñi si àll bi ñoo ko gën a soxla. Thior relais communautaire. lan journée bi tey Guigui. waaw journée bi ñu ngi ciy bég di xamal ne Guigui moo xewle comme mu ngi koy def depuis cinq cinq ans. ren mooy cinquième édition bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat muy continuer di ko def ba ñuy fent ay cent ans ay centième édition wala soixante cinquième édition ñu ngi koy ñaanal parce que lii dafa wér-gu-yaram amul la santé n'a pas de prix lépp looy def jiital ci wér-gu-yaram ñu ngi lay ñaan amul amoo kenn amul sa fay ñu ngi ñaan yàlla may ko mu koy continuer di ko def di ko defaat di ko defaat waa Grand yoof waa Sénégal yëpp bëgg si parce que nee bu paree pare pareegul ci waa Grand Yoff mais Tamba la jëm nee na bu pare fii Tamba la jëm Tamba xam nañ Dakar ak Tamba nu mu sore mais nee na day déplacé wu ak staffam dem ba Tamba def fa édition bu mel nii. Grand Yoff lañ nous sommes fiers d'être Grand Yoffois et nous contribuons au développement de Grand Yoff. c'est vrai parce que artistes yi ñoom tamit euh, seen gox bi ñu bokk bi ñu dëkk d'habitude bu ñu demee ba am benn succès bi dañuy toxu dañuy déménager loolu moom kontur naa leen ci balaa ñu leen di gis yàlla xam. loolu c'est pas normal c'est pas du tout c'est pas du tout sérieux voilà sa gox fa nga am fa nga juddoo fa nga màggee fa nga yaroo foofu lañ la mën a gërëmee nga nga nga nga am ngërëmu yàlla ak yonent bi ak say waajur mais bu fekkee da ngay bàyyi sa gox dem beneen gox di fa def naka sudul noonu yaay perte rek donc li may wax yeneen artistes yi mobilisation bi tey Guigui Sarr def exemplaire la def leen noonu ci seen gox si seen secteur bi ngeen dëkk surtout banlieue bi bare na ay artistes artistes ya fa décroché yëpp dëkk ci downtown bi complexe la rek te ngeen di dem fi ngeen bokk da ngeen di dem fi ngeen bokk ngeen xam man ak yéen xamante nañu da ngeen di dund VIP parfois mais day leen dundu tamit li askan bi di sentir muy seen secteur seen gox li ñuy santir ci malheur ak ci ci ci ci bonheur ngeen koy dund ak ñoom artiste bu nekk fa nga dëkk nga mën a tiitaroo tey exemple la gi saar fii mu dëkk ñëpp gërëm nañ ko boo leen gisee témoignage yi am na ku jàllale koo xam ni moom dëgg rek lay wax ci digg bi la jaar moom doomu Grand Yoff la tey moom il est fier nag Guigui fier être doomu Grand Yoff yenn artistes yi dem dëkk ji di fay trois cent mille ak cinq mille bàyyi leen xel ci seen secteur seen gox seen quartier c'est très important ñu jàppalante nag yërmande bi commencé di daw di daw di daw parce que adduna jeex na ba pare adduna bi jeex na ba pare ku xool ci mbay sabar sabar barki démb ngeen ko dégg ak démb tey mi ngi nii tàgge nañ leen ko te looy yootu na nekk sa njeglaay ñu ñaanal ko muy suñu mbokku artiste vraiment ñu koy ñaanal yàlla teral ko teeru ko ci adjana àjjana firdawsi parce que bésu gàmmu jour euh, weeru gàmmu la wàcc liggéey ci accident ñu koy jooy te nappeegu ñu nañ ko ñaanal képp ku mu fa fekk tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla jégal la say bakkaar commencé ka ci sama yaay ak sama papa après yeneen yaay ak yeneen papa yi tamit boole naa leen ci <laughs> merci Sénégal merci à vous et une très bonne continuation à Guigui Sarr parce que vraiment jigéen ju mën góor la man de maa ngi ci ginnaaw maak sama jabar di ko jàppale rek di ko jàppale fu mu yem nag neex voilà. <laughs> appel bi may def mooy musiciens yi autorités yi stars yi footballeurs yi ñëpp ñëw def comme Guigui parce que li mu def nii jafe na bu ko neexoon yemale ko si koñom wala si ay mbokkam mais dafa ñëw publicité ko woo waa Grand Yoff yëpp ñu ñëw def def si stage bi kon loolu ñu ngi siy bët di si kontaan di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla saxal mu gën a continuer waaw ak waa Parcelles ak waa Grand Yoff waa Patte d'Oie ñoom ñëpp daal Guigui woo na leen amul ku mu bàyyi Guigui Sénégal yëpp la woo parce que li mu def nii dina ko defaat feneen defaat ko feneen ak feneen ak feneen su ko yàlla mayee jàmm mais ñoo xamante ne dañ la fekk nga koy def ni seetaan la la gis la ñëw jàppale la donc loolu sant yàlla la bu baax a baax a baax. message lan ngay jigéen ñi nañ dépisté wu nañ métti na parce que comme ni ma la ko waxee rek da gis ku génn ñu wax la yaa ngi affaire bi rek automatiquement nga tiit mais non non mën nañ ko faj te dañ koy faj dañ koy faj bu ko teelee gis teel ko faj da ngay wér dafa mel ni góom ay de góom boo ko fajul du wér te cancer mooy góomu intérieur. donc loolu médecins yi dem nañu bëgg am nañu ay jéego yoo xamante ne mën nañ ko faj femme yi bu ñu ragal feebar bi nañuy dem di dépister wu. di di terminer di remercier sama frère euh, Cheikh Bakhoum directeur ADIE xam ne démba comme li ma li ma wax le dëkk bi dafa métti sikki ma lakkandoo euh, ma xam ni mu demee sollicité wu ma kenn sollicité wu ma kenn vraiment mais moom démba dafa gis affiche rek bu yónnee délégation am ñu ñëw apporter seen soutien pour journée bi passé à merveille ba nga xamante ne tey même patient yi sax ñoom ñëpp dañ leen di jox dañ leen jox ndékki ci suba dañ leen di ñëw jox añ ah incha allah euh, patient yi daal ñu ñu mën a parce que dañ fi yendu ñoo xamante ne 6 heures du matin yéen a ngi dégg ay muur ay ay géejawaay fu ne leen jógee donc nga jox leen ñi lekk sax loolu rek tiyaaba bi nga ciy am ak waxatuma nga faj leen di remercier aussi ministère de la culture euh, par le biais de Khoudia Diagne aussi mu nekk sama sista bu baax jàpp na ci ak madame Soham Wardini maire de la ville de Dakar aussi moom tam ma koy remercier bu baax a baax xam ne ñoom tamit depuis sama première édition donc ñu ngi ciy jàpp par le biais de Khalifa Ababacar Sall